ñun lan moy lepp ñu ne lepp nettali la bo ne da nga jël ay rabe àll boole len ak ay nit teunk ci jikkoy nit pour nit ñi baña mer ngir nga defar len ci ñu ne nan lañ koy defee ñu ne ba lañ koy ubbi ci at askan wu mënta doon nak am na caabi juñ koy ubbé nan lañ koy ubbé ñu ne dañ nan léeboon léeboon boko déggé ci wolof rek moy lu romb la wolof bu ne on rek lu romb la na na fekkon na jëlon na on boko déggé rek passé la ñii déglu ne ko léppoon kon ndax nit mën naa lépp te amul mbooloo déedéet bu ko defee nag lépp moom mooy daara ji nga xam ne ci lañ daan defaree jikkoy nit ci lañ daan wax xale bi li mu war ta def nettali ko ñi daan def lu bon loolu lu bon leen ci fekk ñi daan def lu baax lu baax leen ci fekk ba pare nag di ci nàmm xelam xam nga lépp dañ ci daan jàngal gone waññi dañ ci daan jàngal gone wàññi ndax dañ ko daan léebal ne ko euh, bukki rey na pet euh, dañ ko daan léebal daana ne ko euh, gone gi bàyyam jox na ko yet mu sànni ko ci guy gi guy gi jox ko doomu guy mu sànni ko ci géej gi géej gi jox ko jën petax mi fëkk ko may ko aw dunq àll bi lakk ko may ko may ko aw lakku euh, sa tukkikat bi jël ko jox ko aw bëy tëgg bi rey ko jox ko liir buur bi fiir ko jox ko aw fas mu delloo fas yu bàyyam bu ñu paree ne gone gi répété kon série boobu su ko gone gi jàppee ba mën ko répété kon lu ñu mën a jàpp dañu mën a jàpp ne gone googu ñu ngi nàmm xelam ci calcul ci biir léebi ñu boole ko ay cax ba nga xam ne xale bi moom ci boppam day déglu lépp di ko répété xam nga euh, euh, processus bi nga xam ne moom la ñu am mooy processus wu di nettali nit ki li nga xam ne moom ci boppam dana ko jàpp di ko nettali kon dañuy nàmm xel donc lépp loolu mooy fonction fonction lépp mooy yar boole ko ci ree ndax maam dañ daan bañ mu dem ba dootu mën a joxe dépense yëg ne moom tekkeetu dara ñu koy wane ko maam am nga xam-xam waaye comme danoo bokk kër xale bi bi muy judd maamam mi ngi fi buy màgg di gis maamam dana ko mën a léebal loolu moo tax maam daan léebal doom euh, tey nag amatul léegi tey lu xew mooy bala ngaa am jàmm danga ngaa beru am sa këru bopp boo amee jabar bala ngaa am jàmm danga ngaa ànd ak moom ngeen am seen appartement wu bopp kon nekkatunu ci dundinu woo xam ne nit ñi dañuy màggandoo ci biir kër gi dañoo nekk ci nit yoo xam ne ku tekki beru la bu njëkk mën a ku tekki yokk la léegi ku tek beru la euh, ont tuba bi nax ñu bi ñu gu doy bi daf fekk ci ñu am ay 300 mètres carrés ñu am ay 30 mètres carrés di 600 mètres carrés muy kër yu reuy ami pench bo ont Cambérène ba légui dang ko fekk ci ben dang fekk yeneen ay kër bi dama 150 mètres carrés 150 mètres carrés mooy kër gu amul ëtt te kër gu amul ëtt maam du fa lépp ndax kër gi benn barab moo fa ne bu te dafa am lépp kat bu mag bu fa ne bu tudd télévision Mom bu takusan jotee moy commencé di lépp bu timis jotee mu lépp nu muy léebee tàkkusaan day tek ay ay ay ay film xalé. bu timis di marax di dugg mu léebal mag ñi tégal leen ay novelas bu 20 h jotee mu léebal kilifa gi tégal ko journal télévisé ndax journal télévisé léeb la dañuy netali xew ci bés bi bu lola paré nak ñu léebal ko match football wala ñu léebal ko film kon loolu moom moo tax ci liñ mën a gàttal euh, tey mag mënatul a léebal gone ndax mag gisatul gone. lépp moo doon école Afrique fa lañ daan defaree jikko yi fa lañ daan yeeyee xale yi. mooy depuis 92 ak Babacar Mbaye Ndaak bi ñu jëlee xalaat 98 ñu def association des compteurs liñ njëkk a def mooy fan la gone yi ne ñu ne gone yi tey dañu soxla lépp ñu monter ay spectacle de conte di tourner ci école yi li ci gën a doy waar mooy tey di nga jouer lu mat téeméeri yoon ci at mi. waaye ci téeméer yoon yooyu nga joué yow en tant que conteur en tant que léppkat 98 yi maanaam juróom ñeen fukki ak juróom ñetti yëpp bitim réew lay doon tubaab lay jox avion fayal la hôtel fayal la cachet loo xam ne mën nga cee dundu ñaari weer ñetti weer ngir nga léebali ay doomam léebi Afrique ndax nee na léebi Afrique day defar waaye boo ñëwee Sénégal ne kaay leen ma léebal leen ñu ne déedéet bu nu léeb yóbbu leen ci télé bi nga xam ne léebu tubaab bi la leen di léebal yow sa yaay di la wax ne la euh, mag dañ koy wekk tubaab bi jox la lépp boo xam ne muus mi bis bu ne janax ji daf koy nax maanaam ki gën a tuuti toujours day nax ku mag léegi nag tubaab bi noonu la duggee ci suñu xel euh, solution yi ñu am nag mooy tey site internet yi yi nga xam ne ñun moom la ñuy mettre en place tey boo demee di nga am compte africa point org di nga am euh, compte moi point net di nga am ay sites yu bëri yoo xam ne léeb yi ñun léegi dañ koy jël obligé def ko ay vidéo mais monte ko ak dessin animé ba nga xam ne xale yi dinañ ci mën a jot leneen li mooy atelier de compte yi ñuy def mooy forme ay compte dafa am ñaari façon lépp lépp bi ñu lépp ci biir kër yi ak lépp bi nga xam ne c'est une forme artistique nekk spectacle biir kër yi nag li ñu man mooy parents yi dugg ci bibliothèque yi def ay séance d'animation de compte tant que école yi amuñu ay bibliothèque léppkat yi di fa ñëw du jàll case de tout-petits bii bi ko président Ablaye Wade di teg dafa am lu mu waxoon dafa dugg palais 2000 bi mu duggee palais arbre de Noël bu mu njëkk a def ñu dem fa léebal ko biñ ko léebalee ñi ngi ànd ko ñuy wax maam Mapenda Sarr biñ ko léebalee ba pare mun ne damaa bëgg ñii léeb yi dugg ci case des tout petits mais ndax biñ koy monter kat yi kenn boolewu leen ci ñi nga xam ne dañ gëstu léeb kenn boolewu leen ci kon te dëkk bi ñi xam léeb bareetuñu léegi ba mu ko defee nag bi ñu nekkee di léeb ci biir case des tout petits yi dañuy obligé jël léeb yi nga xam ne dañ ko bind di ko léebal xale yi te léeb yooyu du laal xale yi

bu état bi jëndee nañ ko dugal ci programme yi ba léegi les nouveaux comptes d'Amadou Koumba bi nga xam ne man moom laa jàngoon élève jàngale 35 ans ba léegi moom la sama doom di jàng te ñu mel ne ay bind kat yaa ngi fi bind nañ ñoom Mamadou Samb ñu ngi bind ay lépp ñoom Babacar Mbaye naa ngi ñu ngi bind ay lépp man maa ngi jéem a bind ay lépp lépp yooyu bu fekkente ne duñ ko dugal lépp yi du ànd ak jamono xale yi tey dañu war a am lépp yoo xam ne dañ ciy gis li nga xam ne mooy wax ak ñoom je pense que yooyu mooy solution yi nga xam ne mën nañ ko jël